Eh, man mi jot naa ku bu ne ci ne nit ñi dama Cheikh Bara Ndiaye mi ngi nii wax ba pare audio mi nga bañ cee jàngat war nga cee naa fekk nga maanaam ku bu ne jot naa ko waaw <laughs> loolu nag nekk loo xamante ni bii lu day waar la waaye nag lépp nag defe naa ni expliquer naa leen ko tey it am na ñenn ñoo xam ni comprendre dañ hmm. parce que mënu ki nga xamante ni ki yaay def ak moom émission hmm. mu war a ñëw wax hmm. ngeen waxtaan ci ba pare ngir mu ñëw leeral mbir yi waaye nga ñëw nag di ko jiitu nag mm. nekk fi di leeral te fekk ne am na loo xamante ni bii waaj ngeen ko ngir mm. bés bu mel nii daal dee am nettali li ci làmmiñu boroom la dàqee du dëgg mm. kon Cheikh Bara boroom def gis defe naa ni li nga xam ni bii mooy coow ci dëkk bi mooy sa ojo yi nga xamante ni bii nee na xar ci dëkk bi ñenn ñi ne montage la ñii ne ojo yi lu tax Cheikh Bara def ko mooma hmm. coow li nekkul ojo yi nga xamante ni bii wasaaroo na ojo hmm. audio yi demee yawa wala dañ laa monté waaw mooy ojo yi def effet bi rek ah waaw wax naa gars yi <laughs> président doxantu na deful effet waaw euh, mbër yi def nañ signature contrat defut effet. waaw Sénégal ba mu daj sama audio yi rek mooy def effet. waaw audio yaa ngi def effet yi def effet yi nag. Mm-hmm. moom nga bëgg léegi ñu waxtaan waaw moom laa bëgg ñu waxtaan waaw incha allahu taala loolu lu mën a nekk la ndax mm-hmm. euh, lu jaadu la tamit parce que mm-hmm. itte yi ko nit ñi jox mm-hmm. euh, mérito na ko ñu toog waaw euh, indil leen ci ay gindiku comme ni ñu ko daan defee ci bépp actualité tamit boo xam ne dafa jëm ci keneen ku dul ñun su egsee su jëm see ci ñun tamit mën nañ e joxe ay explication yoo xamante ne mooy ni mu demee rek allah voilà léegi yi nga xamante ne bi def na nga xamante ne bi yëngal na dëkk bi dañ laa dégg Cheikh Bara Ndiaye yëkkati ay kàddu ay kàddu yoo xamante ni bi nit ñi njortuwuñ woon ni wax ju mel nii dina jóge ci yow jëm ci ki nga xamante ni kii moom mooy Ousmane Sonko nga dem ba tëkkale usmaan Sonko wane ñàkk xamam nga tëkkale ko Adama Baro dal ne Ousmane Sonko mii hmm. mook Adama Baro ñooyam hmm. romb ci loolu wax nga tax su li nga xam ne bii mooy solo Ousmane Sonko ni mu ni mu fonkee woon bés bi ko président Macky Sall di woo. Mm-hmm. ba yëre bi mu gën a fonk la sol. Mm-hmm. loolu nekk loo xamante ni bii lu doy waar mais d'abord ba dama bëgg wax na nga wax ma ci njalbeen gi ndax audio yi yow say waxa wala du say wax loolu ñëwagoo. waaw audio yi. waaw euh, sumay kàddu la. say kàddu maanaam nekkul ne dañoo jël beneen kàddu. Mm, defar ko ba mu niroog suma kàddu fekk du man déedéet audio yi sumay may kàddu la. Euh, man maa ciy wax hmm. Euh, am na loo xam ne dañ ko ci naturelu maanaam nekkul audio yu naturel. mooy na ma ko waxee woon. Hmm. ak ni ñu ko dégtalee nit ñi bokkul. parce que du même audio yi sax du même année. Hmm. du même groupe du même temps du hmm. même du même jamono maanaam du même événement tamit hmm. euh, dañ koo jël jël fee jël fee jël fee dajale hmm. fexe ba boole ko ba mu génnee ab jumla li arab di wax jumla ñu dégtal ko nit ñi waaye nag amul benn problème comme que lépp samay kàddu la tamit lu ci mën a nekk rek soo ma ko laajee dinaa la ci indil ay leeral comme ni mu ko mënee lu wóor tamit nga xam ne dama koy wax mooy nekkul loo xamante ne dama ko waxoon ak sama nit mu enregistré ma wala ma yónnee woon ko nit doon ko nëbb mu génn déedéet ci groupe boo xam ne depuis 2014 defe naa wala 2015 ba léegi ñu ngi foofu. Mhm. groupe la boo xam ne ci xalaat ak euh, lépp luy xalaat rek ñuy waxtaan. Mhm. Euh, dañ ko fay def mu nekk ñu ko xel am koom la. xel am koom xel am koom la googu defe naa ne mm, oustaz Mbacke Sylla rek. Mhm. maanaam maga fa ci biir. Euh, ku mel ne tey Mamadou Diop Decroix. Mm-hmm. daanaa ko fa dégg parce que invité woon nañ ko fa mu ñëwoon fa ñu am waxtaan ak moom mm-hmm. ku mel ne Cheikh Mouhamadou Rafaay am nay jamono mm-hmm. dugaloon nañ ko fa daan waxtaan ak moom ku mel ne Mamadou Si Tunkara ay Maxtaar la Kagula euh, ñoom oustaz Bamba Ndiaye radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yërëm su mel ne Baye Fallou Cissé ci ñu nekkoon administrateur groupe bi sax ci la bokkoon ay oustaz Atoumane sàmb euh, docteur Mourtada Gaye mhm. euh, Cheikh Baye Niass mi oustaz Moudou Kama Thiaw maanaam Sénégal la woon daal ba ci Farba Senghor mhm. ñoom ñëpp ñu ngi fi woon su masaan dara masaan am ci dëkk bi dañ ciy discuter ak lépp loo mën a xalaat rek dañ ci daan waxtaan mhm. euh, bari woon ay sart lool nag waaw <laughs> yàlla def man damaa xaw a dëng ñu bokk ci ñu weole sart yu ñu bari ñu ñu dàq ñu ñun ñi mer gémm nag dem defaat suñu beneen groupe tudde ko xalaat waaw voilà am na ci gudd audio yoo xam ne ci xalaat lañ ko doon waxtaane mm-hmm. am na ci yoo xam ne ci xel am koom la ji boppam lañ ko waxtaane mm-hmm. am na ci yoo xam ne tamit ci li ma jàpp mooy waxewu ma ko ci benn groupe mais euh, nit laa ci waxal ñu dagg ci tuuti mm-hmm. boole ko yee euh, taqale ko génne ko noonu la daal waaw d' accord mais en tout cas ginnaaw nag ngol ne say kàddu la rek bon mooy li am solo léegi li nga xamante ne bi dégg nañ ko muy kàddu yi nga xam ne jub na nga ne Ousmane Sonko euh, Adama Barrow rek da tane li nga xamante ni bi noonu la wane tamit ne Ousmane Sonko mbubb mi mu sol mu gën a cher mi ngi ko sol ca ba nga xam ni moom la ko président ak Sall doon dalal nga wëlbatiku daa dee wax ne kat loolu moo lay wan fonk gi nga xam ni moom la fonk bés bi ak fi mu ko teg kàddu yooyu nga xamante ni bi moom nga yëkkati lu taxoon nga yëkkati ko. <coughs> waaw awalan rek xam naa détaillé ko par benn baat par benn baat du yomb ci man. comme ni ñu ko ni ñu ko waxee noonu parce que kon temps temps bi ñu war a am fii sax moo ko dul mate. Mm. mais ala kulli haalin euh, dégg ngeen ci audio bi ma mel na koo xamante ne dama ne Sonko Adama Barrow dong la tane. waaw loolu. donc li nga ko mën a li nga ko mën a wax rek mooy euh, ay kàddu la yoo xam ne ci kaw man ngaa wax ne kon da nga doon xeeb Ousmane ko daal maanaam di ko xeeb di xool koo xamante ne da ngay jàpp ne nit ko euh, da nga koy jéem a daal ba ko yemaleek ay nit ñoo xam ne ci xeebeel daal laa teg loolu maanaam ci ci ni ñu ko mën a waxe mm-hmm. waaw loolu nag maanaam yaakaar naa ne tamit boo gisee audio yi Euh, biñ ci waxtaanee man ma ne la man d'accord naa ne amul lu ma ci war a jaral may wax. parce que hmm. gisuma ci loo xamante ne. Hmm. maanaam information la bu jar di rattraper di daw di dabu ji pour wax mën naa bàyyi ba bis bi ma naan wax ak nit ñi ma wax ci. Hmm. parce que jàpp naa ne euh, Ousmane Sonko diw daf koy xeeb. loolu du du du du information. parce que damay wax ne yàlla est-ce que du yàlla dafa jël Ousmane Sonko. muure ko mbalaanam ku ko gis xeeb ko ba mu doon lim doon. parce que mën naa wax ne xëy na man xeeb naa Ousmane Sonko wax naa ko yow ak Adama Baro yéen a yem. Mm-hmm. wala Adama Baro rek nga tane. waaw waaye jàpp naa ne loolu président Macky Sall mii ci dëkk bi. Mm-hmm. tey mm-hmm. Euh, su fekkonte ne dañu ko yàlla def ko xamaloon Ousmane Sonko nga xam ne xeebu ko. dina gën a dina likkite Ousmane Sonko bien avant muy yegg si fii. te Ousmane Macky Sall. moo yor service de renseignement yi dëkk bi. waaw bépp information bu am ci réew mi xam na ko. Hmm. waaye yàlla xamalu ko Ousmane Sonko daf ko xeeb. Hmm. jàpp ko benn gone. Hmm. bu nit ay gone topp rek muy wax waxi gone yoo xam ne du mujj fenn. soo mosaan wax sax day wax ne ci ay ordinateur lañ yem. kon kooku donc moom considéré wu ko. waaw yàlla damay wax ne mbalaan moom la muuree Ousmane Sonko ni ko Macky Sall doon xeebe. amaana man noonu laa ko doon xeebe. Mm-hmm. waaye loolu nag mën naa am gàllaajam la parce que yàlla yàllaa def ñu koy xeeb ba mu agsi fi mu agsi mm-hmm. te jàpp naa ne loolu tamit wéetuma ci mm-hmm. parce que 2019 ak léegi defe naa ni yàggul waaw euh, Macky Sall nekkoon na fi euh, sa Seck nekkoon na fi nekk candidat Ousmane ko nekk fi nekkub candidat waaw Khalifa Sall ñii di ànd ak sa Seck tey ànd ak ànd ak Sonko tey dafee romboon Sonko dem di ànd ak Idrissa sekk Malick Gakou. Hmm. dafay bàyyi woon ko dem ànd ak Idrissa Seck. Barthélémy Dias ànd ak Idrissa Seck. Déthié Fall ànd ak Idrissa Seck. Cheikh Bamba Dièye euh, Mbam Moustapha Guirassy ñëpp dañoo romboon soon Sonko. bàyyi ko mu dem ànd ak Idrissa Seck mën nañoo wax ne loolu booba ci gin ci kaw xeebeel jàpp na kii daal euh, ku tuuti la koo xamante ne ñun waruñu koo topp. maanaam loolu lañ ko doon xool bu demee ba tey nag. maanaam ñoom ñëpp ku dem ànd ak moom maanaam li leen yóbbu ba xeebatuñu ko bay ànd ak ñoom amaana looloo tax xeebat looloo ma dindi ci xeebeel googu ba ñëw tey te tey loolu ma ko waxoon mën naa am bu ma ku ma laajaantoon tey fii ma toog ni du ma ko wax parce que booba noonu du woon dara Ousmane ko mu doon digaate la tey nag jox nañ ko mairie hmm. six mois def na ci loo xamante ne Adama Barrow defu ko Gambie six ans six kon tey nag du ma waxati ne moom moo ko aadama borom ñooyam. xeebatoo ko waa xeebatu ko parce que def na preuve. waaw mais savoir c'est que bu ñu continuer mbirum xeet googu sax. parce que dafa am tamit parce que même danga nga gëmul sax ay projet ci ojo yi nga xam ne moom laa dégg ngay wax euh, gis naa ni euh, ay projet Ousmane Sonko yi muy teg nga xamante ne bi moo tax jeunes yu bari topp ko comme lu ci mel ni franc fa bi nga xamante ni bii Ousmane Sonko neex na euh, bu falew daf fiy jóge ak tamit yu mel ni France gi nga xamante maanaam yi nga xamante moom la Ousmane Sonko wax ne day dindi loolu yëpp da nga ko jël football sànni fale ci ajang euh, ci audio yi. waaw loolu maanaam li ma wax léegi rek. lu mel noonu laay waxaat. mooy Ousmane Sonko. waaw warta am problème mu. woote naa nangam di weddi na ko. Mm. xam nga Ousmane Sonko li muy woote na mu tudd. naa la tudd dégg weddi. xam nga nu mu tudd dégg weddi waaw nu mu sant mm. xam gëm xam gëm waaw dégg weddi la tudd mm-hmm. sant xam gëm lu tax loolu Ousmane Sonko li muy woote képp kum jàkkaar loolu wax la ko mm-hmm. nga nangul ko ko rek mm-hmm. kooku dañ laa war a dem faj la parce que dafa ñëw ci penc mi mu ne waaw maanaam boo ko ko rek ñii rek mu wax ko rek nga ne ko waaw ay dañ la war a faj ma il faut lekk ko war a weddi ba gis lu war a firndeel nga war a doog a mën a topp Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dafa ñëw ci penc bi mu ne. waaw damay dagg buumu njaam gi nga xam ne moo dox suñu diggante ak tubaab yi. Mm-hmm. damay dàq dundiin wi nga xam ne système bi lépp maanaam fen la dooleel baadoo la néewal doole way néewal doole baadoo la euh, dooleel borom koom-koom borom daraja. Mm-hmm. Euh, buumu njaam gi nga xamante ne français yi ñoo ñu ko wékk. Mm-hmm. te buumu njaam gi jaar ci langue yi ñuy làkk. jaar ci monnaie bi ñuy jëfandikoo. Mhm. jaar tamit ci système bi ñuy dund nga xam ne mbooleem courant bi ñuy jëfandikoo ndox mi ñuy naan téléphone yi ñuy jëfandikoo tali bi ñuy jaar loo mën a laal rek maanaam dañ naan lii moom France ko moom. Mhm. sénégalais yi yendoo werse jëfanaani ko werse ji France. Mhm. loolu Ousmane Sonko bu taxawee daan dama ko dindi. normalement ci borom xel mu mel na man li ma war a jëkk def balaa ma koo nangu. Hmm. maanaam li ma njëkk def mooy nga ne ah waaw da nga koy weddi parce que lu tax. Hmm. da wax ne waaw lii kii taxaw fii tey seexanta Anta Diop. fa xam-xam ba toll mu woote lii échec ko. Hmm. kii naka la mën a taxawee ne man lii dama koy woote gañe ko. ñu ne ay ca nga ne Ousmane maanaam Ousmane Sonko ñëw na taxaw bu ne damay soppi système bi. waaw système bi mooy damay dàq fen indi dëgg ci penc bi. baadoola ak ku dul baadoola ñëpp yem ci kanamu yoon ñëpp nekk ci àq ak yelleef ñëpp tolloole ko. Mm-hmm. nga ne ah waa kii xanaa moom dafa am xam-xam boo xamante ne moom la ko bëgg a defee. Mm-hmm. ñu ne ah Seex Anta Jóob ko ëppoon xam-xam te defu ko. Mm-hmm. ñu ne waaw kon xanaa dafa am ay milliards. yu am ci ay loxoom ay compte banque ñu ne déedéet. amul sax ay milliards parce que moom ak ay nitam toujours ñu ngi ket di wut xaalis ci nit ñi. nga ne ah kon amaana. ay relation la ko bëgg a teg mooy dafa am connaissance ci àdduna bi bu bu jëlee réew mi rek àdduna bépp dañuy ñëw song ko ñu ne déedéet amul sax président bu mu xam mën naa tontuwaale loolu nga wax. waaw benn yoon la mës a dugg ci palais. Mhm. mooy bis bi ko Macky Sall invité. amul benn président bu nekk ci àdduna bi bu muy jëflanteel. kon li mu wax tegu ko ci kaw ne ay relation laa téye moo tax ma war ko mën a def. Mhm. ñu ne ah kon nag daal lenn la mooy dafa am ngëm dafa nekk nit ku dëggu hmm. loolu nag dafa nekkul lu yàlla denc ci biti nit ki hmm. ci biiru nit ki la ko yàlla denc boo mën a xool nit mu ne la damaa dëggu rek ndax ki dëggoo ko dëgguwut ñoo nuroo nuñ mel hmm. dëgg ak fen tamit ñoo nuróob départ waaye arrivé ba lañ bokkut waaw léegi nag loolu moom borom xel da koy dàq xam nga li Ousmane ko di woote soreewul ak li yonent doon woote mooy jële fen ci pénc mi saxal fi dëgg yonent bi salaay salaam li muy mën a mën a wax li muy am am xam-xam li muy am am fasaha li muy am am éloquence mhm. maanaam politique ak nit ñi politique bu rafet te réewut bi mu wootee ci penc mi ñi ko gën a jege ñëpp dañ ko weddi woon mu nekk ca dëgg nit ñi di ñëwaat par benn di ñëw par benn ba ñi ko weddi woon ñëpp mhm. mujj nekkaat ay ñay xareem mhm. mën naa wax na li muy woote tamit soreewul ak euh, li Cheikh baam ba doon woote parce que Serigne Touba yoonu murid wii tey Mhm. sëriñ bi bi mu koy tàmbali mën naa wax ne cérémonie bi mu njëkk a def mhm. cinq cent personnes yoo xam ne moo leen doon jàngal maanaam nangu nañ xam-xamam ba nangu mu leen di jàngal mhm. nga dajale ne leen pénc mii gor yi dañoo sonn góor yi adduna yi ñu ngi noot doomi aadama yi lislaam mooy lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay lislaam amatul ci dëkk bi tubaab yi teg nañ fi nooteel dañoo bëgg nag jëlee dox doxin woo xam ne du romb di jàng alxuraan di ko tari hmm. waaye di jëfee alxuraan ba nga xam ne lépp luy dul dëgg ci penc mi dañ koy toxal fa dëgg nekk ñu saxal ko ci penc mi te bokk ci yem di hmm. ko sëñ tubaa waxee cinq cent personnes yoo xam ne dañoo nangu loon sëñ tubaa xam-xam la hmm. bu leen sëñ bi ne na maa saxal dëgg ci penc mi jële fi fen maanaam quatre cent quatre-vingt-treize personnes yi dañ ko weddi dañoo weddi na sëñ tubaa mënu ko daal di jël seeni bagage nangootuñ toog foofa ci moom topp ko ci système boobu muy woote mhm. ñu daal di dem bàyyi ko fa mhm. sëñ Touba dese sept personnes mhm. sept personnes am yooyu ci la sëñ nekk di ci nekk di ci nekk ba mbooleem ñi ko weddi woon ñëpp dañoo wañ ñi par benn par benn dañoo fekk si ko lii Sonko di woote Cheikh Anta Diop bi mu ko wootee fii ci Sénégal tuuti nit a ko mu nekk ci nekk ci ba xëy dee ñu dem suuli ko doog a dikk naan ay waay la mu doon wax Mamadou Dia loolu la fi woote woon waaw ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba xëy dee ñu doog a ñëw naan ay lëm doon wax. Mhm. kon Sonko su ko wootee. Mhm. ku mel ne man weddi ko wala ku mel ne keneen weddi ko. Mhm. ca ay at ndax audio yi am na lu mat deux am na ci yoo xam ne bi ma koy def booba nekk guma chronique fii ci wal fajiri mooy audio yi may tontu nii bi may tontu nii. mooy Sonko mënul sensé système bi bi ma koy wax. booba nekk guma ak émission bii tàkkusoo tàmbaleegul. ci wal fajiri kon buñ nee léegi deux ans ci ginnaaw. am na koo xam ne gëmoon na ne Sonko mënta mënta soppi système mu Sénégal. Mhm. te tey kat dafa mel ne buñ ko xoolee mën naa am léegi d' d'accord na ci bon te bokkuma Pastef. Mhm. waaye dàqu ma ne moom Sonko mën na ko. Mhm. dàqu ma ko. kon nag loolu damaa jàpp ne dañoo wan Sonko ne ko sa politique mi ngi évoluer sa discours mi ngi évoluer ñi la gënoon a bañ balay weddi léegi ñi ngi nangu si. kon continuer ci voie bi nga nekk. waaye duma ci dégg ne maanaam Sonko def ci tuutee. d' accord Cheikh Bara euh, même booru d' accord ne <laughs> Sonko du ci tuutee dina ci tuutee mais dafa am foo xam ne moom da nga faa tuutal Sonko dëggantaan waaw parce que fii moom <laughs> xaw ma noo koy kiiwee waaye fii moom làqat ci ko dana jafe Cheikh Bara hmm. parce que xam nga nag sa audio yi dafa gaaw hmm. parce que yow da ngaa mën a audio Cheikh Bara hmm. audio bii nga xamante ne bii mooy troisième audio parce que affaire ay audio audio la bii moom da nga ci wax ne bi moom da nga dëggal ni Ousmane Sonko séq naag Adji Sarr parce que li tax nga wax loolu mooy danga nga expliquer wane ni gars yi couvre-feu bi dafa metti euh, te man ni yu moom fu mu xas ba ñëw day buux faw moom nga dem am foo ko yóbbu noonu mooy ni nga xamante ni bi noonu nga ko waxee ci ojo ba n'est-ce pas waaw donc yow wéral nga ni sawaay moom euh, lëkkaloo na ak ndaw si waaw waaw ban sekk bi ma déggee ojo bi dama demee Cheikh Bara ak li muy toog di defendre fi ak ni mu maîtriser dossier Adji bi tey mu ñëw wax wax jii nga xamante ni bi lii nan la mënee nekk. waaw léegi nag nu mu demee xam naa ne audio boobu mooy bi ëpp importance. waaw audio boobu gën a xaar gars yi ñu xaar. audio léegi nag boobu la gars yi bëgg a leeral. léegi nag mm. foofu dangeen may may nag balaa maa leeral loolu. waaw ma am lu tuuti loo xam ne nag man maa ko bëgg a leeral man ci sama bopp. muy te ma bëgg mu leer lool ci bopp sénégalais yi. na leer. bu ci jëkk mooy. Mm-hmm. damay def publicité. muy le 21 octobre dinañ taxaw. Mm. ci place de l'obélisque bi pour xeex ak ak yelleefu détenu yi nga xam ne jàpp nañ leen te ñu nekk ay détenu politique. waaw damay non damay public waaw waaw ñëpp a ngi may déglu kenn du sappe fi mu nii li ma war a leeral ci audio bi. Ah. kenn du buuse. léegi nag ne leen ko déglu ma ma leeral tuuti. nga publicité le 21 octobre. <laughs> Ah. du vendredi. Dame ak collectif boobu ñu àndal dañuy génn def mars. Mm-hmm. ci place de l'obélisque pour Cheikh Omar Diagne. Papito Kara. Mm-hmm. Mm, Karim Xorom Xaq. Mm-hmm. ak. Euh, Ousmane Diagne ak ñoom euh, Awa Dia ak ba démb am na ko ñu jàppaat ci boy yi hmm. ñoom ñëpp jàpp nañ leen tëj leen te kenn defu defu ci dara hmm. ñu fas yéene taxaw nag wax ak ma Macky Sall pour ñu bàyyi détenu politique yooyu hmm. loolu laa bëgg senegal yi dégg ko li ah. ci des waaw mooy ñor na ma lool moo ma gën a ñor tontu yi may tontu nii dinaa la tontu nag ba mu leer nañ ah, ci affaire Adji Sarr di nga laaj waaye damaa bëgg Sénégal xam ne réew mii ñu nekk waaw abri public la tudd. Mhm. suñuy maam ñoo fi nekkoon di ko dundee. Mhm. ba jóge fi suñuy bàyyi nekk fi. tey jii ñun ñoo fi nekk di ko dund. Mhm. yàlla dafa dogal 2012 am koo xamante ne amul police amul gendarmerie Ablaye Wade yoroon lépp. mu ñëw wax ak sénégalais yi ci njekk ak teraanga. mu jël réew mi jox ko ko. mu yore ko mu tudd Macky Sall. mu dem ci doomi aadama yi wax ñoom ak ñoom wax ju yiw ba ñëpp ne Macky Sall dafa yaru. mu jël réew mi jox ko. Macky Sall yoraat yor réew mi ba deux mille dix neuf. Hmm. mu solaat mbubbam mu yiw demaat ci nit ñi yiw ñi wax ak ñoom wax ju yiw. Hmm. ba jëlaat réew mi dénkaat ko ko. deux mille dix neuf. mille vingt quatre nag li sartum réew mi wax mooy ko toog ñaari mandat da ngay dem. Hmm. Macky Sall nag nguur gi daa neex ci moom doyalut li mi nekk mooy continuer toog ci kaw nguur gi lànk bañ ko bàyyi. li may yëgal sénégalais yi nag te xam ne fii laa lañ ko mën a yëgale parce que tey xam naa ne ñoom may nañ ma audience tey. Mm. boo xam ne daawuma ko am. Mm. léegi nag li ma bëgg sénégalais yi xam ko mooy Macky la jarul mm-hmm. ngeen di xaar mu naan leen waaw ak déet. Mm-hmm. parce que li tax mu naan leen du ma wax wii du ma wax non. Mm-hmm. laa leen bëgg a wax tey jii ngeen xam ko yéen waa Sénégal. mooy jàpp na ne bërki démb ay nit ngeen woon yoo xam ne su waxee ak yéen da ngeen koy dégg fal ko. tey nag Macky Sall jàppeetul sénégalais yi ay doomu aadama. Hmm. li leen jàppe xaw ma mbaam laa war a wax xaw ma fas xaw ma lu mu doon parce que moom li mu yaakaar mooy. Hmm. mandat bii mu war a amaat mu war a wutiwaat ci ñun 2024 moom ay yat la ci yaakaar. ay waaw hmm. te lu leer laa leen di wax nag yéen waa Sénégal. làmbatuwuma boo demee fii ci LCI Mbao. waaw cinq escadron moo fi nekkoon. waaw nañ ko cinq yóbbu nañ ko ba dix escadron maanaam yokkaat nañ ci juróomi escadron. fii ci Wakaam. def nañ fi benn escadron. Faidherbe def nañ fa benn escadron. Mm. ak benn commandement. Mm. muy treize. waaw benn guerre amut bekkuñu ci benn menace amul lenn lu mën a expliquer escadron yooyu ñu yokk. Mm. soo demee tey jii Kaolack def nañ fa escadron. Koukandé def nañ fa escadron. Kaffrine def nañ fa escadron. Tamba def nañ fa escadron. Saint-Louis def nañ fa escadron. Saraya def nañ fa escadron. Kédougou def nañ fa escadron daabo def nañ fa escadron maanaam yii yëpp boo demee ñu ngi fay installé ay escadron gendarmerie. Mm. jël ay ndaw dugal leen ca biir ak police réserve yi nga xam ne ña nga ca école ba ca Fatick mille lañ mille. Mm-hmm. ñu ngi leen dugal ci biir ay camp ñuy entraîné. Mm-hmm. ñu jël list sénégalais yi war a dundee mooy dund gu seer gii ngeen di dund. Mm-hmm. xaalis bi waroon a nekk fii di circuler ba dëkk bi du dëgër. jël nañ alal ji nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom ñu dem jënde ko ay oto yu bees tàq. Mm. indi ko fii ci senegal jënd ay liif yu baree baree bari parce que jàpp na ne sénégalais yi ay mbaam lañ boo jëlee liif bu leen dóoree troisième mandat bi mu bëgg dina ko am ci ñoom kon jàppeetul sénégalais yi ne ay nit lañ yoo xam ne da ngay wax ak ñoom ci xam-xam waaye dafa jàpp ne ak liif ngay yor nit nag ba ma juddoo ba léegi bu suma gis kenn koy ñaani jabar yóbbug liif mm. nit du duñ bëgg ci moom dara yorug liif mbaam dong la ñuy bëgg ci moom dara yor aw yet pour am ko ci moom mm. Macky Sall nag yet la yor di entraîner ay gone ñu ngi escadron yaa ngi nii man maa ko wax ci kenn du ko weddi lu wër la escadron yii ñuy monté. amul lu ko mën a expliquer. bu ci des mooy. waaw tey jii gis nga Maysa Saleh waaw waaw dama ne Maysa Saleh. Hmm. May sa Saleh. waaw dafa dafa retraité. Hmm. ñu yokkalaat ko. may hmm. Maysa Saleh benn aide de camp waaw. général Maysa Maysa sa waaw Badio Camara dafa retraité mu yokkalaat ko. Mm-hmm. Moussa faal dafa retraité mu yokkalaat ko ñun ban problème lañ am. Mm-hmm. ba ñun jeunesse bi nga xam ne dañ leen dañoo waral liggéey war a am ay mar ay ay yu bees. Mm-hmm. Macky Sall nanguwul ñooñu kenn falu ci. moom daal pas yu retraité rek lay jël ñu leen tabb. lan moo nekk ci loolu lan moo tax ñi retraité rek lay jël di leen tabb. bi ci des mooy Macky Sall dafa def wax waxeet. waaw parce que Mamadou Ibra Kane da koo waxoon ne ko ndax doo jël Ablaye Wade. nga def ko euh, premier ministre. mu ne ko Ablaye Wade at yi mu am loolu Mamadou Ibra Kane mii moo ko laajoon. mu ne ko at yi mu am kenn du ko am ma lay liggéeyloo. Hmm. Moustapha Niass mi mu fal at yi Ablaye Wade amoon la am. Hmm. bu dee am ña Macky Sall dafa wax ne du liggéeyloo màggat Moussa faal dafa retraité màggat la na ko bàyyi mu dem. waaw may sa sele. Hmm. ak ñoom Badio Camara ñoom ñëpp ay màggat lañ. pour te dire daal Sénégal. waaw Cheikh Ahmadou Bambañ. Cheikh Omar Foutiyou. Maba Diakhou Ba. waaw ñoom ñëpp dañoo xeex. te ba am ko. ba ñuy taxaw di jamono tubaab bi du dañoo mënoon tubaab bi moo tax ñu jàkkaarloog moom. Mhm. waaye dama leen a wax ne ba ba tubaab yi ñëwee bëgg a noot suñ maam yi suñ maam yi dañoo dem ba jeex. waaw buumu nooteel gii Macky sàll yanu. Mhm. tam yàq moo yàq euh, euh, Guinée. gàtt Guinée gii. Mhm. gis ngeen Burkina Faso troisième mandat ko yàq. moo yàq euh, fépp ci Afrique te dana yàq Côte d'Ivoire. loolu lii Macky sàll jël nga xam ne buumel noteel la bu bëgg koo jël toog ci kaw sénégalais yi ne danaa leen gouverner par force. maa ngi ñaan bépp doomu Sénégal. Mm. Macky sàll lu mu jaral Macky Sall pour mu wékk ñu buumug jaam. na ko jaral sénégalais yi pour ñu dagg buumuk jaam ki d'accord loolu laay wax sénégalais yi na ko ñëpp xam jërëjëf bismillah léegi nee naa la nee naa ba sama rappel non non man xam naa waaw dama ne na ko waaw léegi nag mbirum Adji Sarr <laughs> léegi mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko bàyyi ma répété waat question parce que non non euh, xam naa am na mën a dabe am nañu mën a dabe waaw mooy audio bi nga wax ne gars yi bu fekkente ni bi man nuyu bi damaa dëggal rek ne damaa wax ne damaa damaa damaa dëggal ne Ousmane Sonko dafa doon waaw dafa am lu seq ak Adji Sarr wax ne loolu gars yi noonu lan mel waaw d'accord aywa léegi loolu waaw su fekkente ne nit ki dafay toog daw doog a sama émission bii waaw loolu dina ko jaaxal lan moo tax sëñ Baara wax lii ci audio yi waaye li ma wax ci audio yi waaw boo arriéré sama émission bi nga xam ne ca mois de mars ban date sax la tollool 11 février waaw mooy première émission bi ma def. ginnaaw bi ñu nee Adji Sarr jël na plainte teg ko ci kaw Ousmane Sonko. waaw mooy 11 février. Mhm. la ma waxoon. ci audio boobu. Mhm. boo dégloo première émission nga xam ne ci ban bii laa toogoon. waaw micro bii laa tiimoon man nii maa doon wax. waaw du ñaari jëmm. lu weex laa soloon tey lu jaune laa sol. Mhm. la ma wax ci ojo ba. wax naa ko fii. boo gën a dee xam naa nag dañ ma dégluwu doon ca booba jamono. man damaa xëy. waaw dégg ñu ne ku tudd Adji saar dafa def porte plainte Ousmane Sonko. Mhm. ma ne lu mën a xew rek mooy Ousmane Sonko moom defut demut foofu. Mhm. bu Ousmane Sonko génnee daal di taxaw ne man dem naa fa. Mhm. man damaa bokkoon ci sénégalais yi nga xam ne dama ne kon kii luñ ko fa waxal moom la. fas yéene taxaw ci dëgg lu Ousmane Sonko am am doole. ak lu mu bari bari ay militant bu teree dëgg gi nga xam ne dañ ko war a wax ñu wax ko ko. boo ma masaan toog fii. dama daan wax wala talbisul xaq bil baatili wa taktubul xaq wa antum taalamun laaye jooju diiraa coowul aji saar gi bis bu nekk ma jàng ko wala li ma eh, talbisuun al xaq li ma talbisuun li ma talbisuun al xaq bil baatili wa taktumuun al xaq wa antum taalamun bis bu nekk ma jàng foofu aaya bi ba su ma def émission te waxuma ko seetaan leen émission yooyu la 11 février maa ngi sol grand bu bu weex fii laa toog ma ne bu benn sénégalais wax ne aji saar day fen parce que Ousmane Sonko daf ko fekk ba fi muy liggéeyee kon bu ko accusé loolu danaa gëm Adji Sarr cinquante pour cent. Mm-hmm. damay gëm Adji Sarr cinquante pour cent laa wax. Mm-hmm. li ci des ñu may yoon mu def liggéeyam. waaw fas woon yéene nag jatu nepp soccet. Mm-hmm. lu ciy dëgg nu wax ko. te ojo yii boo déggee ni ma ci waxee. war ngaa xam ne nag ñi doon wax naan ñun Ousmane Sonko moo ñu préparé. indi ñu ci tele bi pour bu nee weex na ñu ne tàll bu nee wow ñuul na ñu ne kukk. kon war nañoo xam ne ñun ay sénégalais lañ yoo xam ne position yi ñu jël dañ koy collecté ci information yi ñuy am ñu jël position mais jëluñu position parce que Ousmane Sonko lañ bëgg a faral jëluñu position parce que Adji Sarr lañ bëgg a faral mhm. man bi ma njëkkee dégg Ousmane Sonko ne dem naa fa kon dama ko ne ket doo ci set mhm. yàlla dogal ñu dox ba yàgg dossier bi fuité maanaam PV bi fuité mhm. ma gis la médecin ba wax te xam ne science moo wax parce que médecin médecin boobu assermenté la dafa waat mu kii wax na de dañ koo sëy léegi léegi. Mm-hmm. toog nañ lu mat ñaari fan yoo xam ne yii moom sëyu ci. Mm-hmm. saa njóogu man bu ma met bu ma bu ma séance ne sama jabar dafa ëmb dama koy gëm. waaw bu ne euh, da ngaa jabet dama koy gëm. Mm-hmm. bu ma séance ne sa sexe doom bi sax nangam la dama koy gëm ba jëndi yére avant muy judd. naka la séance mën a taxawee ne aji saar mii sëyuñu ko ñaari fan yii. man ma weddi li science wax di gëm aju waxu Adji Sarr kon li ma doon may Adji saar mooy gëm ne dama ko war a jàppale tàmbali damaa di douter parce que wuute na ak science. Ndeye Khady Ndiaye génn. waaw wax ne Adji Sarr kat li mu wax du dëgg te moo moom salon bi moom mooy mooy patron aji saar mm-hmm. ñu tegal ko 40 millions mu ne déedéet jaraluma ko Adji Sarr li mu wax du dëgg. Mm-hmm. ñaareelu maasees ba nga xam ne moom ak Ousmane Sonko ñoo bokk duggandoo ca barab ba. Hmm. bu fekkee ko nga xam ne bu fa dara xewoon moo koy njëkk a dégg kooka ne aji saar li mu wax amut hmm. jëkkër yi Ndey Xadi Njaay hmm. di Ibrahima génn def sorti wax ne moom ci biir kër gi la ko Ousmane Sonko fekk ci biir kër gi la ko Ousmane ko bàyyi waaye lu ñu nuroo buru yi wala yëngu-yëngu bu wanee ne kuy kuy kuy siif jigéen wala dara am na fa loolu amu fa daal di weddi li aji saar wax ma dox di dox ba capitaine Touré mi nga xam ne moom la Adji Sarr ñëwoon di di sa plainte ci moom. Mm-hmm. génn wax. yàlla suñ borom di dogal ma dox di dox ba Baye Mbaye MC nga xam ne moom da doon jàppale Adji Sarr te nëbbu ko. Mm-hmm. di sëriñub Adji nga xam ne ci moom la jébbalu muy doomi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mm-hmm. woo ma téléphone na ma fekk ma Brioche doore bu Nord Foire. ma taal sama oto fekk ko fa. ma dugg ci biir otoom mu yëkkati ñaari airport jox ma ma takk. ma déglu Adji Sarr ci jëmmi boppam. di mm-hmm. waxtaan ak Baye Mbaye MC moom yi doom yi Baye Niass ci mm-hmm. ne ko réew bii ma giñ Sonko mm-hmm. du dëgg Mamour Diallo moo ma wax ne ma fexeel ba Sonko ñëw fa nga wax ne dalaa violé soo ko defee dinaa la yóbbu Amérique maa ko nangoo ci làmmiñu Adji Sarr te Baye Mbaye MC lu mu yàgg yàgg yàgg ci àdduna dana génnee audio yi Adji wax ne moom li muy giñ Sonko du dëgg ma déggal ko sama bopp waaw léegi nag yow Baye sawaay lii lépp man bu ma amoon yéenee jàppal Adji Sarr lii lépp am dangaa bëgg ma continuer di def wala talbisul xaq bil baatili wa taktubul xaq wa antum taalamun mooy nëbbu dëgg gi jël fen wi porté ko te xam ne lii mooy dëgg mm. wala dangaa ngaa bëgg ma dem toppi dëgg gi mooy xam ne Ousmane Sonko mii kat état de senegal dong ñoo làkkatu ci gannaaw ak jigéen bëgg koo bëgg koo bëgg koo bëgg koo bëgg koo néewal doole mm. te man kat mission bi ma am ci àdduna mooy képp ku ñuy néewal doole danaa la jàppale. Hmm. Ousmane Sonko nag comme man jàpp naa ne. Hmm. jàpp naa ne moom dañ koo bëgg a néewal doole. Hmm. ci wàllu politique du ma seetaan dinaa ko jàppale jàppale googu ma koy jàppale nag moo tax nit ñi dem ba defe ne dama dem mbax même bu nekkul woon ci dëgg dama koy jàppale fekk déedéet damaa jàpp ne sonk moo nekk ci dëgg moo tax ma di ko jàppale damaa jàpp ne aji saar te Adji saar dafa ñëw weddi boppam encore. ndax médecin bi nee na science nee na Adji ba mu xoolee kanamam daf ne ba mu ñàkkee ndawam du tey. moom mu toog daal ne ah man kat am naa sama ndaw. Mm-hmm. waaw ca ban ca moom nga xam ne dafa wet weddi totalement li li ensermenté bi wax. li mm-hmm. médecin bi wax. Mm-hmm. Adji Sarr ñëw waxoon ñu ne dafa ëmb. waaw boobaag léegi def na ñaari at gisuñu ëmb. te bi ci des it tam gën a wéral nag te lii yàlla di ci àtte. mooy ajisaar waxal na boppam ne moom dafa yor ay vidéo. su kilifa diine yi waxut ma àtteel sama bopp mooy dinaa génne vidéo yi. waaye yow gëm nga ne nit dina yor audio vidéo yi Ousmane Sonko. topp ci vidéo yi Cheikh Bara Ndiaye di ngar <laughs> lii rek da lay wan ne ñoom yuruñu dara te li ñuy wax lépp dara du ci dëgg man nag ba ba may faatu ba sama noyu gu mujj mm-hmm. kenn mënumaa def loolu loo xamante ne dëppawut a dëgg Ousmane Sonko mënu ko mm-hmm. Adji Sarr mënu ko li may def nii mm-hmm. Sénégal moo tax gis nga Cheikh Omar Diagne ñu may wooteel léegi nañ dem marche pour mu génn ku ne xam na ne am na fu ma jaar ak moom lu matul deux semaines avant ñu koy jàpp wala une semaine avant ñu koy jàpp daje na moom fii ci Walfadjri muy dugg man ma def sama émission bay génn. Mm. moom mu ànd ak maas mbubb mm-hmm. gis na ma gis naa ko ñu ngi leen rombante kenn nuyuwul sa morom. Mm-hmm. mais bi biñ ci tegee deux jours. Ah. wala une semaine. Ah. état Sénégal bëgg koo jaay doole. Mm-hmm. li ma jotee ak moom kooku maa ngi moom la. waaw ah. mais jaay doole moom loolu Sénégal a ko moom. d'accord ma damaa jóg taxaw. xeexal ko. waaw voilà. Cheikh yow nag laykat nga. <laughs> Mm-hmm. yow Cheikh ku mën a lay la mm-hmm. parce que waxoon nga ko mm-hmm. parce que yow sax wax nga ko ci sa audio yi parce que nee nga <laughs> Sonko liñ koy kii laykat yi billaahi bu alxamisee ba ma dem ba layal ko ngeen xam ne ñi mënu ñoo lay waaw kon kii layal jàmbur bu ay mbiram taxawee bu layee waaw war caa mën a génn Cheikh Bara li ngay wax nii yëpp yow lay waaw baatub lay baatub lay sëñ Moussa Ka daf ne laykat noonu waaw sëñ Moussa Ka daf yi waaw laa ngi téye a wedem njàccaar yaa ngi danañ gumba yi njaacaar laa gi tee ngeen a wedam mm-hmm. man ko xamut la no ma gumba yi njaacaar laa gi tee ngeen a man ko xamut laajut ko xam xaw maw layam xaw maw layam daa di wax ne avocat daa layal ku rey sàndarma borom jumaa ji man nga ma layal ba yàlla fal ma mm. baatu ñu jàng français ñooy wax argument wala ay preuve ñun ñi jàng arab tey faral di werante ci diine di ci coowoo ñun lay la ñuy wax mooy lépp lu ñu naan leeral loolu mm-hmm. lay lañ koy wax mooy dañ naan ibnu taymiya layal na ko seex sidi aji malik layal na nangam sëñ tubaa layal na julli gi layal na xabdu layal na nangam ñun loolu lañ koy waxe mm-hmm. lépp lu ma bëgg leeral rek danaa ne man loolu mën nañ koo layal mooy leeral mën naa koo leeral am leer mm-hmm. noonu la demee loolu mooy layal waaw kon layal bi loolu nga ci jubloo loolu rek la leeral rek li mooy layal eh, sooy bu mii boo nee mbiram lacc mu ne lay ko waaw loolu ay ay ay suñuy wax la noonu doo ngay daara layal ko